bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa ma callamtana innaka anta alcalimu alhakim allahumma callimna ma yanfacuna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 Rewmi FM 97.5 ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ki ñu àndal ci wàllum xarala yi mooy suñu technicien bi di Léopold Mendy mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala ñu may xéewal ya fa moom mu doon xéewal ya mën a lim way xéewal ya kenn mën a xayma ndax loolu lañ ñu wax ci alquran mu ne ñu wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuuha bu ngeen fi nekkee di lim xéewal yaleen yàlla xéewalal du ngeen ko mos a peeg du ngeen ko mos a matal ba tax na suñu yonent bi sallallahu alayhi mu ngi ñuy baaxee ci maana xadis ci ngineel ba yàlla dottil jaamam yi jullit bi am ci particularité bi nga xamante ne yonent bi mu ngi nii di la baaxee ci xadis ba nga xamante ne mooy na jullit bi di sooboo ci nelaw waaye namuy nelawee ci anam wi nga xamante ne bu nekkee ci nelaw noon bu mag ba ñu naan seytaane ndagem waxtu julli fajar dafa am bunus bu mag ba fa nekk njëriñ ju mag njëriñ su mag ya fa nekk seytaane di la ko bëgg a xañ ngalla waaye nañu xeex ak suñu banneexu bakken bëree suñu banneexu bakken ba seytaane bañ a am espace ci la nga xamante ne mooy euh, ngir mu bañ ñoo ñàkkloo bénéfice njëriñ faida ba nekk ci waxtu wi nga xamante ne mooy waxtuy fajar gannaaw bu ñu doggee noddukat bi yëkkati baat bu neex boobu nodd joo xamante ne muy riir jamonoy fajar jullit yi di si xàmmee seen njëlbeenu audience bu ñu war a am ak seeni borom ndegem seytaane da di noonu doomu aadama waaw ndax yàlla buur bi tabaraka wa ñuy joxoñal ca suratu yasin ci alam ahadi ilaykum ya bani aadam an la taabudu sheytaan innahu lakum aduwun mubin wa nicbuduni hada siraatun mustaqim pour yàlla ne alam ahad ilaykum ya bani aadama moo ba xam defuma woon dexalante ba ma dexalante ki yéen doomu aadama yi dexalante bi mooy promes bi mooy allah taabudu cheytaan bu leen fi nekk di topp cheytaane wala di ko jaam waaw ko lakum aduwun mubin yàlla leeral na ko de nee nañu cheytaane di suñu noon bu bir la suñu noon bane fang waaw buur yàlla ne ñu wani abuduuni ni ngeen ma jaamu man yàlla haada siraatun mustaqim loolu ma leen wax yonent bi andil leen ko application ba fa nekk niñ ko war a appliquer ak muni bi yëpp yonent bi jàngale ko sallallahu alayhi sallam loolu mooy yoon bu jub bi nga xamante ni képp ku ci tënku mucc nga képp ku ci teg sa tànk mucc nga sallallahu alayhi wa sallam yal na ñu ko yàlla fayal kon seytaane boobu moo xamante ne moo fi nekk di xañ doomu aadama bi xeetu yiw ya nga xamante ni moom la doomu aadama bi nar a fàggu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu an nawmu an salaatin fajar nelaw ci waxtu yi fajar musiba gënu koo weesu pertaa ngi gënu koo weesu ba na mu ngi ñuy jox fii faayida ju mel ni qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yenentu sallallahu alayhi wa sallam nee na seytaane de dina yeewu kenn ci yéen waaw ci jamono bi nga xamante ne noppale ku ngeen suubu ngeen ci li nga xamante ne mooy nelaw dina yebal ay gàngooraam ñi ñëw daal di yeew diis gann ci boppu kenn ci yenn jamono bu mu nekkee di nelaw waaye yonentu bi sallallahu alayhi wasallam nee na seytaane yeew jooju muy yeew nit ki takk takk ba muy takk nit ki yeew la bi nga dëgër takk la nee na dina ko xaajale ñetti xaaj ñetti pàcc la ko seytaane di xaajale waaw sallallahu alayhi wasallam nee na waaye nag guddi bi yëpp ni mu sore sore sore sore seytaane takk-takk yooyu mujj la takk loolu mujj la yeewu kaay leen ma jox leen solution sallallahu alayhi wa nee na nu guddi bi sore sore sore nu mu gudd gudd gudd ah xamal ne saa yoo yëgee sa bopp ni yeewu nga ximbiliku nga ci nelaw bi sa conscience delsuwaat na nekk nga ku conscient bul bàyyee seytaane loolu mu la takk da nga ne ŋot gém koo firi noo koy firee yonentu bi ne fa inistaqayta boo yeewoo fa dakara allah na nga tudd yàlla moo xam benn baat boo tudd ci turu yàlla yi na nga yeew rek ne alhamdulillah wala nga ne alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur wala nga ne laa ilaha illa allah nga ne allahu akbar wala nga ne subhaanallah ndax yàlla moo ñu ne walillahi al asmaau al xusna faduuhu biha walillahi al asmaau faduuhu biha ñeel na yàlla ay tur sell tur yu matale yu rafet nang leen ka woo ci tur yooyu la ngeen mën wala lu jàppandi kon képp ku yeewu ci nelaw yenentu bi nee na seytaane loolu mu la takk yeewu la ba nga ne ŋot boo yeewoo ci nelaw ngi ximmiliku rek na nga tudd baatu yàlla yenentu neena na jamono jooju nga tudd baatu yàlla in xalat uqdatan nee na am na benn takk bala seytaane takk dañ na takk-takk boobu firéeku na loolu seytaane yeewul loolu fireeku na waaw yonent bi ne fa in tawaddaata boo jàppee in xalat uqdatan beneen yeew bala seytaane yeew loolu tamit fireeku na waaw ñaareelu takk bi fireeku na yonent bi ne fa in salla in xalat uqdatan boo julee ñaari ràkk ci jamono jooju ñetteelu takk bi firéeku na kon masalan seytaane yeewu na sa takk na sa bopp bi mu dëgër këj takk sa ñaari loxo yi bi mu dëgër këj takk sa ñaari tànk yi bi mu dëgër këj yonent bi ne boo yeewoo nga tudd yàlla lala seytaane takk ci sa bopp loolu firéeku na waaw yeew balay seytaane yeew loolu dañ na ci sa bopp yonent bi nee na boo jógee jàpp laal ndox neena na ñaareelu takk bam la takk loolu tamit firee na deñ na nee na nag boo julee ñaari ràkk ñetteelu yeew bam la yeew ci say tànk ñetteelu takk bam la takk nee na loolu tamit dañ na yonent bi nee na résultat bi nga ci am nag mooy mooy lan fa asbaha nachitan waa ji day xëy nekk ku foor ku nekk en jour waaw mel ni dangaa mise en jour sa bopp comme ni ngay mise en jour say téléphone nee na mise en jour nga sa bopp léegi da ngay nekk ku nekk en jour koo xamante ne da ngay nekk ku nekk en forme waaw yonent bi ne tayyibal nafs neena sa bakken bi day doon bakken bu tey day doon bakken bu laab day doon bakken bu rafet day doon bakken bu sell yonent bi ne nag képp ku defut lii moo tax mu ne la wa illaa asbaha xabisa nafs kaslaan yam la tegtal nii boo ko defut nag boo xëyee da ngay xëy nekk ku bakkenam salte ku bakkenam tilim nga doon ku tayal bés boobee su ko defee sa dara du ñoŋ sa dara du jekk sa dara du baax waaw ndax sa bakken day doon bakken bu taq waaw moo tax ñu nit ñuy ñaan suñu ñaan bi allahumma aati nufuusanaa taqwaaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaaha yàlla nga ñu laa suñu bakkan yàlla nga orienté suñu bakkan jëmmali ko fu laabal fu ñoŋal fu koy sellal ndax bu ñu bàyyee suñu bakkan ak suñu jëmm ji rekk bakkan ji mën naa diri jëmm ji yóbbu ko defloo ko ci lu yàlla soppul yonent bi bëgg ko waaw kon nañ leen bokk di mokkal ñaan bi nga xamante ne mooy yow yàlla yàlla nga labal suñu bakkan yàlla nga sellal suñu bakkan yàlla nga fóot suñu bakkan ndax yow yaay buur bu ko moom yaa ko bind yaa ñu ko dénk yaa ñu ko bàyyee kon yàlla nga orienté suñu bakken yóbbu ko ilaa kulli ma tuhibbuhu llahu wa tarrah nga jël suñu bakken orienté ko jëmale ko fi nga bëgg ak fu nga xamante ne mooy fa nga gërëm ba tax na yonent bi ne képp ku faalewul tegtal yamala tegtal ni nee na kooku mooy asbaxa xabisal nafsun kaslaan kooku mooy ki nga xamante ne day yeewu suba mu doon bakken ju takk bakken joo xamante ne day day day day salte bakken boobu du laab waaw jëmm ji tamit day doon jëmm joo xamante ne jëmm ji day tayal kon képp koo xamante ne jàppante nga nelaw nelaw bi xóot na moo xam xóotul jamono boo demee ba gis ne daal yeew nga ci nelaw na nga tegtaloo hadis ba yonent bi jàngale ñu di ñu di ko nab nabi ak mboolem auditeur ya nekk ci réew mi FM 97 point 5 ñuy nuyu mbokk auditeur ya mel ni suñu fidèle auditeur di suñu xarit Mor Ndiaye depuis société Dakar Dem Dikk ak ki koy jàppale ci liggéey bi ak mbokkam ba nekk ci gaaru ceer ba nekk jaxaay Kër Massar di borom daara ji sëñ Mansour seen jaate gi nga xamante ne mooy góor goo gay ñoom ñëpp dañuy bàyyi xel émission bi nga xamante ne mooy jaar fii ci réew mi TV rawatina waxtu fajar bi nu mel ñu ngi koy bàyyi xel yal leen yàlla fay ci déglu bi ñu ngi leen di nuyu mbokk yi buñ ne képp koo xamante ne yeew nga ci suba yeew nga ci fajar nga jëflanteg la yonent bi tegtal ci xadis bañ leen doon jukkil nii sànq ah xamal ni nag li des mooy na nga géem a góor-góorlu waaw yow mi nga xamante ne buñ ne suñu askan senegal suñu askanu senegal la gën a bëri si nit ñi bu ñu yeewoo ña yàlla wërsëgal ñu am waruwaay ba tollu ni daa ba waaw ah, nga xamante ne suñu mbokk fidèle auditeur yañ leen tuddal ni moor Ndiaye nekk sofooru Dakar dem dikk waaw ah, moo yore ligne onze bay dem Kër Massar ah yonent bi salaa sallam am na lum ñu fi tegtal mooy du'a rukubu daab képp ku yeew suba nga ne da ngay xëy moo xam am nga oto walla amoo oto nag ñu may ñu waxtaan ak yow ci la yonent bi tegtal fii ci xadis bi nga xamante ne mooy ñaan ba nit ki war a ñaan ngir mu dugg la nga xamante ne mooy waruwaayam mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow mi am waruwaay yow miy def transport en commun yow mi amul waruwaay te nga di dugg ci bus public yi wala oto yi nanga nga bàyyi sa xel la yonent bi tegtal mooy lu wóor leneen li nga def loolu wóorul na nga tegtaloo ci joxoñ ba yonent bi joxoñ ne nanga nga yéeg ci waruwaay boobu ne bismillah alhamdulillah booy dugg na nga tàmbali ne bismillah boo duggee ba pare toog nanga ne alhamdulillah boo ci noppee na ñaan ñaan bi subhaanalladi saxara lana haada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun yonent bi lii la tegtal de nee na nga ne subhaanalladi set ak ca laange ñeel buur bi nga xamante ne saxara lana haada moo ñu tàggatal waruwaay bi avion bi yàllaa ñu ko tàggatal gaal gi yàllaa ñu ko tàggatal oto bi yàlla yàllaa ñu ko tàggatal particulier bi ma yore ni yàllaa ma ko tàggatal subhaanalladi mboolem xeetu ak mboolem xeetu cet ñeel nañu yàlla alladi ndax mooy buur bi nga xamante ne saxara lana haada moo ñu tàggatal waruwaay ba ñuy war ne wa maa kunna lahu muqrinin ñu nag waruwaay bi rek haa munuñu ko tàggatal suñu bopp de munuñu koo créer ba ñu di ko tàggatal suñu bopp waaye nag ah lu munti mel daal wa inna ila rabbina la munqalibun waaw ci yàlla la ñuy dellu de waaw waruwaay bi nu mu taaru taaru taaru nu mu la yéem yéem yéem du ku koy dawal du ku koy yóbbu du taaru waruwaay bi moo la war a yéem waaye yàlla mi créé ka créé waruwaay boobu yàlla mi créé kiy dawal waruwaay boobu ah yàlla boobu noonu nga war a delloo njukkal moo tax nga ne wa inna ñun de ilaa rabbina fa suñu borom la munqalibun moy suñu delluwaay ak waruwaay bi waruwaay waruwaay bi de lu mu yéemu yéemu yéem la mu taaru taaru taaru yàllaa ko créé ku koy yëbbu di naaw ak moom ci jaww ji yàllaa ko créé roof ko xam bi kon eh, terminus bi daal du ci kenn du fenn fu dut fa yàlla nga delloo yàlla njukkal waaw nga bi ni ko defee yonent bi nee nga wax ne alhamdulillah benn yoon nga waxaat alhamdulillah ñaareelu yoon nga waxaat alhamdulillah ñetti yoon nga daal di si teg allahu akbar allahu akbar allahu akbar nga daal di si teg subhaanaka allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li innahu la yaghfiru zunuba illa ant mbokk yi lii da ba jullit bi war a ñaan jamono bu muy yéeg waruwaay bi nga xamante ne moo xam moo ko moomal boppam moo xam daa fay dugg ci moo xam dañ koy yóbbaale ndax ginnaaw bi nga waxee lii nga ne mboolem xeetu cant yi ñeel lañu yàlla sant yépp yu kawee matale yi ñeel nañu yàlla alhamdulilah nga wax ko ñetti yoon trois fois nga daal di si teg allahu akbar yàlla màgg na màggaayu yàlla kenn namunu koo xayma ndax moo fi teg lii moo ñu roof xam-xam ba defar lii mu di naaw ñun ci jaww ji mu di direk ñun ci ndox wi mu di direk ñun ci tali ñu ne ndong ci kawam nag mu di ñu jëmale fépp foo xamante ne buur yàlla sob na ko ngir teral doomu aadama nga naan buur bu def lii buur bu am kàttan bi ni moo fi nekk di buur bu mag waaw nga wax màggaayu yàlla ñetti yoon su ko defee nga ne subhaanak mboolem xeetu callaange ñeel nañu la yow yàlla allahumma yow mi di suñu bor inni man sa jàmbi de zalamtu nafsi aji tooñ laa si sama jëmm ji waaw ku mën a tooñ sama bopp laa kon ma lay ñaan waaw ndax yàlla moo kenn du ko tooñ waaw danga naan allahumma buur yàlla inni man sa loof bii ku mattadi gii zalamtu nafsi ku mën a tooñ sama jëmma laa kon maa ngi lay ñaan faghfir li nga ma jéggal yàlla nga ma jéggal erreur yi ma nekk yàlla nga ma ko jéggal innahu lu fi nekk kañ laa yaghfiru zunuba amul kenn ku fi nekk di jéggal ay bàkkaar yeg ñaawteef illaa ant kudut yow kon yow musluwaay bi toll ni yonent bi jàngale ko sallallahu alayhi ñu nit ñu di leen ko baaxee ci réew mi fm ci waxtaanu fajar mbokk yi lii jafewul boo ci góor góorloo nga mokkal ko mun ko te boo ko mënee saa yoo ko waxee dënk nga sa bopp yàlla aaru nga protéger nañ la am nga gaaranti mbokk yi lii jafewul nañ leen ko géem a góor góorlu mën ko mooy du a oroko bu dàbb jamono ba nit ki di war waruwaay nit ki nag buñ ko waxee jullit bi lañ fa joxoñ na wax bismillahi alhamdulillah mu teg si ne subhaana alladi saxara lana haada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhaanaka allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li innahu laa yaghfiru zunuba illa ant mbokk yi lii képp ku ko saxoo nga di ko wax jamono bi ngay yéeg ci sa waruwaay amaana nga am garanti ju toll ni macha allah yàlla dina la garanti te noonu lay deme ndax yàlla moo nu ñu ne ci alquran wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónni bi ma yow sama ndaw yónni bi ma la yónni yow yonentu yàlla bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow ni wu dara yow ni ci lenn lu dul nga nekk yërmande ñeel mboolem bi kon bu fekkente ne ka yàlla yónni mu doon yërmande ñeel mboolem bi ndaafoo ni tegtal ñaan bi mel kon ku góor góorlu man ko ku ko man aaru ki ko man am nga kaaraange ju mat waaw am nga kaaraange ju mat sëkk su ko defee nga jibal sa bopp yàlla yàlla gis ne sama jaam bi de a ah, amul den amul dara lu mu yaakaar amul fenn fu mu yaakaar fu dul fa man mi nga xamante ni may boroomam kon yaakaar ba mu am ci man duma ko tas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 ma dahara minha wa batan amin ya rabbal alamin nu baamu ñaan bi rek mooy du'a urukubu daab ñaan ba ñaan jamono bu ñuy war suñu waruwaay yonent bi nee na naan bismillahi alhamdulillah subhaana alladi saxara lana haada wa ma lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhaanaka allahumma inni dalamtu nafsi faghfir lii innahu laa yaghfiru zunuba illa ant bismillahi alhamdulillahi subhaana alladi saxara lana haada wa maa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun allahu akbar allahu akbar allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah subhaanaka allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li innahu laa yaghfiru zunuba illa ant mbokk yi lii mooy la leen Rewmi FM 97 andil tey ngir ñu fas yéene ko wéttalanteeg mbokk auditeurs yi yan nañu ko yàlla sàmmaloo yan nañu ko yàlla kattanal yan nañu ko yàlla manloo amin ya rabbal alamin ndax dafa bokk ci dundu doomu aadama nga dénk sa bopp yàlla buur bi nga xamante ne moo fi nekk leneen lu dul nga dénk sa bopp yàlla wóorul dénkal sa bopp yàlla ndax lii la la yàlla gël waruwaay bi buur yàlla mooy ki ko tàggat moo la ko tàggatal moo ko tàggatal ki ko xam ba defar ko waaye yow mi koy jëfandikoo tamit buur yàlla moo la ko tàggatal kon nanga nga delloo yàlla njukkal ca la nga xamante ne mooy ñaan bi mbokk yi képp ku dugg ci plateforme wala ci seen YouTube bi du ñàkk uh, nga taataan la nga xamante ne mooy la leen Rewmi FM baaxee ci ñaan ba ñuy ñaan jamono ba ñuy dugg ci waruwaay ndax kaarange foo ko mun a amee baax na waaye bu tukkee ko fa muy li gën a garanti waaw waaw defaral defaral jumtuwaay defaral daaba bi waruwaay bi defar ko anam bu la soob waaye nag garanti ba jógee koo fa nag ah loolu tamit soraale ko waaw loolu mooy li loolu mooy li wóor kon nañ leen jël ñaan bi e, gém ko mokkal ndax gém nañoo mokkal lu gën a difficile lii gém nañoo man lu gën a difficile lii waaw te tamit da si baax suba teel képp kuy xëy dugalal sa aaya alquran wala nga déglu waxtaan yi nga xamante ne mooy waxtaan yu niroog lii waaw voilà su ko defee ngay géema taataan sa xol di yeew ngay xamaale li nga xamante ne amaana xamoo ko wala nga fàttaliku la nga xamante ne da nga kaa fàtte woon ndax loolu la yàlla wax fa dakkir in nafaati dikra sayadakkaru man yaksha na nga fàttaliku na nga fàttali ndax nit a ngi nii dina fàttaliku ki nga xamante ne taxoo na ragal yàlla nasaluka allahumma an taxfir lana zunubana wa xafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abrar nasaluka allahumma an taxfir lana ma qaddamna wa ma axarna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta aalamu bihi minna anta almuqaddimu wa anta almuaxir laa ilaha illa anta nastagfiruka wa natuubu ilayk wa salli llahumma wa sallim wa baarik ala nabiyina muhammad salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu